Euh, Pape Maguette xam nga Pape Sané dafa am lu am solo lu mu wax. te loolu bokk na ci matière première bi camp bi bi euh, candidat yi war a utiliser déwén. ëllëg pour def lu lu lu lu yees. mooy les données probantes. maanaam diagnostic enquête amul Sénégal. évaluation politique publique amu fi. adopté budget budget programme bi mais. ba léegi affaire yi jógagul. loolu benn affaire bu important la. boo xam ne lu lu ingrédient la bu bu si mayonnaise bi ñuy defar déwén. Mm-hmm. bu am solo la moom mooy les données probantes ci la ñuy sukkandiku pour jël les bonnes décisions. Mm-hmm. jël orientation yi mën a jógal réew mi. Mm-hmm. Euh, monsieur Guèye dafa am lu am solo lu mu ci teg. moom duut na baaraam capitalisme bi. te exemple bi ma koy jox rek mooy Sonatel. moo Sonatel c'est 11 pour cent du PIB. xam nga am emploi direct la moins de 4000. ñaata Sénégalais ñoo am 17 millions. boo jëlee boo jëlee dix pour cent PIB bi mooy boo jëlee PIB bi divisé ko par dix. nga xam ne quatre mille emplois directs la. Sonatel ñi ñuy fay salaire par fin du mois quatre mille emplois directs. quatre mille quatre mille cinq cent maximum cinq mille ah. parce que quatre mille peut-être de deux mille mooy mooy mooy mujj bind ci Sonatel quoi en deux mille seize. donc euh, xam nga loolu ingrédient la bu wane ne capitalisme tant que mu ngi développé wu. alal li ñuy créé ci ay postes lay dugg. tey boo xoolee entreprise européenne yi nekk biir Sénégal 34 pour cent PIB bi ñoo ko moom. entreprise yooyu il faut ñu def ay diagnostic xool ñaata nit dañu employé. parce que bu fekkee ñoom ñett yoo jël ñaaree benn ba ñoo ko moom ci réew mi ba pare mënuñoo jël ñetti Sénégal yoo jël jël kenn ka problème am na. te ñooñu dañuy jël ci ay nit bëriwul foog ñu def diagnostic boobu. bi ci des mooy wax nga affaire géej gi. xam nga dama am benn xarit bu may waxtaanal démb xëy na du ma turam ma dem ñu toog di waxtaan à ah, très proche de mag Macky bëgg Macky Sall la. Mm-hmm. vraiment di ko liggéeyal. ci service des impôts bi nekk mairie may waxtaan ak moom mu ne ma yow war nga porter benn message ma ne ko ah mu ne ma Sénégal. Mm-hmm. affaire négociation. il faut ñu koy ko ñu jël ay cabinet yoo xam ne ay sénégalais lañ ñu leen ko confier te ñu bàyyi direction yi ay direction PPP ma ne ko ça c'est une très proposition. <coughs> mu ne parce que ma ne ko dama lay jox exemple ma ne gis nga xam nga licence su licence su ñu ngi ko joxoon entreprise tudd Sentel GSM. Mm-hmm. Mm-hmm. en deux mille en quatre vingt dix ko jaayee. cinquante millions. da <laughs> ko Sénégal négocié jo cinquante millions. Mm-hmm. xam nga booba Cameroun ñaata lañ jaayee licence. Mm-hmm. quarante quatre milliards. Tunisie xam nga ñaata lañ jaayee licence gouvernement Tunisie. quatre millions de dollars. quarante six milliards. Kenya Kensel. jaay nañ ko licence au Kenya en même période bi quatre vingt quatorze millions de dollars ñun cinquante millions. yaa may dégg non 50 millions yi sax. xëy na am na ay yeneen mais. ñoom 50 millions lañ jaayee licence bi. licence boobu moo dem ba 2017 ñu jaayee 80 milliards. xam nga ñooñu ñoo gas jamaa ñooñu dañoo tëdd muy naaw dox togguñu sax muy dox. ñooñu li li sama xarit Xaadim Bamba Diagne di wax ne laaj les gars yi dañu tëdd. muy naaw mooy toggutuñ muy dox. man man ma ne ko. lan kan moo négocié woon loolu Abdoulaye bi mu ñëwee en 2001 lan la def. dafa ñëw ne leen licence bii ni nga ko jaaye baaxul. daal koy confisqué. ne leen da ma jox 100 milliards. vous vous rappelez de ça. Mhm. parce que Abdoulaye économiste la xam na ne lii c'est pas normal. donc moo tax proposition boobu ñi jël négociation yi jox ko les bu ñu négocier pétrole wala ñu négocier gaz. Mhm. wala accord de pêche xam nga accord de pêche man bu ma nekkoon ministre de la pêche mën naa accepter ay russe ay indien ñëw ci géej gi mais xam ne laa leen di wax responsabilité societal mhm. maanaam yéen seen nekk ci géej gi dafa yàq activité ay pêcheurs yu bëri il faut ngeen pollueur payeur su ko defee pêcheurs yooyu xaalis bari laa leen di tuur ñu dem ci leneen. loolu mën na nekk la règle du pollueur-payeur tu viens à la mer yaa tax ba géej gi amatul jën booy yi bu ñu demee ci géej pendant dix jours ñëw duñu am lu ñu jox seen njaboot tax ñu koy jël def gaal yooyu di ko demee Europe man la déedéet soit nga bàyyi sama géej ma koy jox sama waa réew ma am sama jàmm ñu toog ci biir réew mi soit tu payes tant de taxes ma ma subventionné leen ko seen activité ñu mën a mel ne comme yéen. comme yéen bateau yi ngeen di yor ba dem ba sax ba fu sori dafa dafa nappe di yàq ñoom tamit moom leen nga am concurrence ngeen am ay rival yoo xam ne ay sénégalais lañ loolu yomb na pourtant pourquoi politicien Sénégal mu ñu ko def. moo tax sax bi nga waxee ne dañoo xaw a yaafus ma ne la effectivement je suis d' accord la ce mot yooyu mën nañ ko ñoom responsabilité sociétale même gaz bi nga pétrole Kédougou yëpp yu fa am ci wàllu extraction bu ñu defoon côte yi. tëgg ko tëgg boo xamante ni bi dañ leen di imposer une responsabilité sociétale moyens yooyu mën na leen ah toog leen fii ngeen gas génne seen or mais ñun ñu ngi dem jëli ay hectares jox xale yi ñu def mbay ñu dem mbay mm-hmm. yaa ngi fi jënd ay tracteurs mu jomb ne ñooy mm-hmm. mais loolu amu fi nit ñi dañuy ñëw gas polier dëkk bi jël alal ji mbuxum ko dem seen yoon beneen bi mooy wax nga affaire FMI ak banque mondiale mm-hmm. man loolu dama ko dénoncé bind ko ci téere FMI yi laa ko leen gis ngeen li Pape Sané wax sànq ne indi nañ fi ay milliards mais milliards yooyu mënoo ko vérifier. dañ koy dañ koy déclarer rek. dañuy déclarer ñoom. def nañ ci ay milliards mais il faut que loolu aussi ñu vérifier ko xam nga Ablaye Wade mos na dem Durban. fàttali fàttali ko woon loolu en 2002. ne il conteste le la dette africaine. moo xam li muy wax nag ma ne Ablaye Wade économiste bu gën dégg li mu wax xam nga ne la dette est surestimée. dañ ci teg ay intérêt ay tappale ñëw nañu lii ngeen amee dañu chantage xoj ñu mu ne leen lii dama ko conteste il faut ñu calculer waat ko. Ablaye Wade en 2002 la def dem ne leen xoolal lii mun ta nekk programme PPT yi moo ko accéléré ba Sénégal en 2006 bi nit 1022 milliards lañ ci dindi. lobbying parce que ñoom xam na ne loolu c'est pas normal donc immigration clandestine pas magal. Hmm. yoonu yokkute bi ko président Macky Sall tëggee man bokk naa ci ñun contacté woon Macky Sall je rencontré le 12 juin 2011 à Thiès. Hmm. le 12 juin jëlal c'était un dimanche il m'a convoqué à Thiès. ma ñëw sama xarit bu tudd Massé nekkoon sama étudiant moom ma woo ne ma Macky Sall daf la soxla. Hmm. yabee madame Seynabou Mbacké mu daan jàngal fii ci Euromed ñoom boole woon ak Macky Sall. Hmm. Ah, le 12 juin 2011 j'étais avec Macky Sall à Thiès vers midi ñuy discuter programme yabee Abdoul Mbow yabee Mahmoud Salah yabee Augustin Tine moom la waxoon sax ne ko Mounirou mii dënk naa la ko gisaatuma Augustin Tine la <laughs> sama xarit la nag mais gisaatuma Macky Sall ne woon na ko Mounirou mii dénk naa la ko ah wax dëgg yàlla buur ayal dëgg yaa parce que Macky Sall moom côté boobu moom. bëggoon na ko dimbali daal waaw awma lu ma ko lu ci mën a wax. parce que nee na Augustin yow yaa dëkk Thiès Mounirou mii canaliser ma ko gisaatu ma Augustin man nag du topp ci nit <laughs> di di di di kii mais c'est pas ce que j'ai cherché bi ma ñëwee on a discuté de programme ci lañ ñëwee. ñu wax affaire yoonu yokkute bi discuter par la booba maa ngi indi benn livre mu tuddee l' économie sénégalaise enjeux et problématiques mu ne ma je vais en faire mon livre de chevet ma dédicacé ko moom Macky Sall mu denc ko c' était en 2011 bu xoolee ci bagaam dina gis livre boobu ma ñëw toog ñu waxtaan bi ñu waxtaanee ci affaire yu immigration clandestine yeeg waxtaan ci affaire yooyu yëpp dama ne ko mais président mu a ma ma ne ko gis nga euh, fii Sénégal il y plus de cent vingt cent trente mille nit yuy di demander emploi chaque année fi mu ma ne ko xam nga projection yi lan lañ joxe en 2025 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi ñoo ñëw ci marché bi chaque année pour nga régler ko doo ko régler ay ay 500 000 emplois en 5 ans na ko 100 000 emplois doyul ci la commencé après mu ne d'accord mu ne programme bi yëg nëgandiku la rek mais dañuy fexe ba bu ñu ñëwaatee moo tax bi mu ñëwee ci PSE bi mu changé ko. parce que boo nee 500000 emplois lay créer ci 7 ans mooy 72000 emplois ngay créer par année. Mhm. te yaa tu minimum 100000 francs nouveau nouveau demande du régler mhm. euh, donc loolu moom mooy problème PSE après bi mu ñëwee PSE nag ci lañ defee rectification. mais même PSE bi bi mu jàllee phase une bi dañ ne dañuy créer 500000 emplois mais 491000 emplois lañ lañ mais man damay faral di wax ne bu ngeen waxee ne 491000 emplois ngeen créé da ngeen est-ce que c'est des parce que xam nga benn waaye mi ngi tabax fi benn bâtiment jël na cinquante sénégalais ba pare six mois après mu ne leen bâtiment bi jeex na dem leen nga emploi deuxièmement salaire ñaata la est-ce que c'est en deçà au dessous en deçà du seuil de pauvreté Sénégal seuil de pauvreté en 2018 boo ko jëlee mooy 2,15 dollars par jour 2,15 dollars par jour ku ko amul da ngaa pauvre 2,15 mm-hmm. dollars par jour mooy genre 1100 euh, francs par jour boo ko amul rek da ngaa pauvre mi. donc salaire yooyu ñuy joxe est-ce que parce que boo nee 2 dollars par jour pour kenn nit la cest à man su ma amee rek su ma amee doom rek wala ma am jabar rek su ma amee jabar rek nekk na 4 dollars. ci saa si parce que dama dañoo sensé ne man sama jabar maa ko war a yor. du dëgg bu ma amee doom rek nekk na 4 dollars ci saa si mais bu nit demee di fay ak mille 000 50 000 90 000 mooy surtout booy nekk ci autoroute bi naa. di di def ay xawma facilitateur yooyu kërën kërën ñu leen di ay cent vingt mille loolu c'est en deçà du seuil de pauvreté loolu mën ko calculer comme emploi décent mhm. donc yooyu yëpp ay problème la boo ci yokkee nag Sénégal nag jeunesse bi tous les demandeurs d'emploi loolu ministère de la jeunesse diagnostic boobu Mame Mbaye Niang bi muy nekk ministre de la jeunesse defoon na diagnostic boobu ñoom c'est à l'époque mhm. soixante-dix pour cent des demandeurs d'emploi Europe boo demee qualification lañ lay laaj boo ko amul ñu ne la non yow duñ wax ak yow demal ci tool yi nga dem ci tool yi ñu exploité la yooyu yëpp ay problème la yoo xamante ne bii hmm. buñ ci boolee nag nga yaakaar ne yow da ngay jëli Europe Europe moo lay réglé xam nga dëpp ba tey ji yeewuñ ci ne européen bi moom marché lañ ci moom ñun nous sommes un marché pour les européens hmm. je te donne un exemple est-ce que pourquoi bi ñuy lebal Sénégal muy def montage TER bi 1238 milliards au départ 630 milliards la ñu waxoon mais dem na même ab 1000 milliards mais milliards bi ñu ko jox pourquoi Sénégal amu woon option wu ne la non je vais la révolution agricole damay dem gën ci ay tracteur defar àll bi ñu def autosuffisance alimentaire. pourquoi parce que amul marché. Mm-hmm. Alstom du gagné marché. Eiffage du gagné marché. kenn du gagné marché donc ñoom nan lay jox xaalis pour nga def li bëgg ñoom ba léegi ñun ñu ngi yaakaar ne tubaab bi dañuy jox la xaalis nga def ci la neex déedéet bor rek la indi ak ay machine ay tali yoo xam ne kenn du ko lekk. loolu mooy problème bi. ñun mm. ñuy lebal xaalis mais réglé wul suñu problème. on a mis trop d' dans ce pays pour quoi pour des marchés yoo xam ne ay turcs ñoo ko gagné. Mm. il a Touba chinois bi mu la joxee 400 milliards pourquoi néewoo ko non garaawul je vais la route à 100 milliards mais les 317 milliards qui restent dama bëggoon def révolution agricole pourquoi chinois yi nanguwuñu ko parce que seen entreprise du ñëw du mm-hmm. ñu yaakaar ne ba léegi nit mooy jógee fële ñëw nga xam ne yow marché rek nga moom marché soit mu jaay la soit marché dégg nga nga ne yow moom mooy développé loolu mun a nekk. ba léegi ñun yeewaguñ ci loolu ñu ngi yaakaar ne diw français mooy jógee fële ñëw français bi il n'a que des intérêts doo xaritam yow xam nga ne ki def jaam ñetti téeméeri at. te pour mu bàyyee ko église bee wax. ak ñi gëm yàlla ne leen lii baaxul ñu doon koo bàyyi bi ñu la defee colonisation bàyyi wuñ ko diaspora américaine bi moo ñëw noir ne ñun du nangu ñu ko ne assommé suñu dëkk yi nga door a arrêté te nga bàyyee colonisation dangaa ñëw ak impérialisme président bu ànd ak yow nga bàyyi ko fi ku ci mel ne Lumumba wala Thomas Sankara ñu ànd ak yow nga rey leen ba léegi mi ngi continuer est-ce que ñun war nañ mën a yaakaar ne ñooñu ñoom pare nañ pour ñu développer wu. mais loolu a jóg moo leen may doole. parce que man mii. pourquoi bu ma ñëwee ku laal Ousmane Sonko mooy eh, ah, wax nii la nit ñi doon xaar. c'est le discours souverainiste. voilà moom mais nit ñi moom la ñuy xaar nit ñi dañoo sonn aussi xam nga tey jii aura Ousmane Sonko mais mais nit ñi dañoo xaar ba sonn. Mhm. ñu sensibiliser leen ne lii moo ñu traîner mu ñëw nekk di def discours boobu. Mhm. ba pare pare nag bind ay téere bind ay mbir yoo xam ne noonu la koy jaarale ji. Mhm. bu fi nekkoon président bi di nga ñëw kii ñëw kii ñëw ñu jàpp ci su ko defee lam wax ñu mën ko doxal ci biir parce que xam nañ ne jaar foofu mooy tax ñu am jàmm gis nga président Macky Sall am na lum liggéey. mais dama manière incrémentale il faut keneen ñëw am leneen lu ñu toftal beneen vision ñëw ñu mën a defar Sénégal. moo tax foofu laay wax ne rek euh, que ça soit ci ay Cheikh Oumar yi ñu jàpp ci immigration clandestine ci lu mu mënta doon dañuy def introspection ñun ñëpp. gis nga Serigne Babacar Sy Mansour dafay faral di ñu wax ne boo bëggee yilif nit ki da koy gën. boo ko mënta gën nga tane ko ñoom nañ ñu tane nañ tane Cheikh Oumar Diagne bu dee ñoo ko yilif. ñu génne ko lillaahi wa rasuulihi nañ tane xale yii ñuy gis nii dimbali leen lillaahi wa rasuulihi mbir yooyu nga xam ne moo dajaloo ci biir réew mi nekk yoo xam ne mooy tax ba gàllankoor li bëri réew mi war a am nit ñi mën a toog ci biir réew mi liggéey fi ñu fexe ba yooyu ñoom ñu dox ci ay jéego bàyyi ay marché wu ay teewa rek am na solo nag baax na de ay BRT ay ay ay autoroute ay nangam nangam nëgandi ko nag fexe ba def révolution bi tax ñu créé man nee naa leen Sénégal mën nañ fi créer chaque année un million d' emplois man maa ko wax man El Hadj Mounirou jaay mën nañ fi créer un million d' par année su fekkente ne bii su fekkente ne bii li ñu war a def maanaam débat souverainiste boobu maanaam li nga xam ne réew mi xam nga tey jii mel ne blé yow chaque année nga jël sa 110 milliards jëndi blé te pourtant yor nga dugub yor nga maïs li tax mu cher mooy da nga kaa produire xam nga keroog benn waaye def na ma mais dugub ren kilo bi dem na 1000 boo demoon bay ko li nga def ci ci BRT nga def ko ci ci dugub déwén kenn du jëndi bële ma ne leen ceeb da ngay dem ba Inde chaque année jënd 900 millions de tonnes de 900 millions de tonnes de de riz 900 mille tonnes de riz. Mhm. chaque année nga def ci presque 250 milliards indi ko ci biir réew mi. di ko jaay 250 milliards bu duggoon ci vallée bi dugg Casamance nga tëj frontières yi. man leen fii amul kenn ku fi mën a argumenter protection la doo ko def fii benn dëkk développé wu protéger ay industries créer emploi tant que ngi bàyyi ay ay mobilier chinois di fi dugg ak ay mobilier turc menuiserie bi xale yi dañuy mujj bàyyi seen atelier dem ci immigration clandestine bi parce que duñ jaay dërëm ñiy def tailleur dañuy mujj dem nekk immigration def protectionnisme parce que en États-Unis dañuy protéger wu. ils votent chaque année des dizaines de milliards de dollars di ko def seen agriculture di leen di leen subventionné te pourtant c'est interdit par l'OMC. France dans le cadre de la politique agricole commune. politique agricole commune en Europe dañuy jël ay dizaines de milliards d'euros di ko subventionné seen agriculture donc loolu du fi mbañ. je pense que donc bu ñu defee protection yi war a def. mën naa la wax ne même ay yoo xam ne étranger la pour def ay études fii boo jëloon booy am master fii organiser en cabinet ñaata ñaata emploi ngay créer mm-hmm. ñoo xam ne ñooy def ay études def ay données probantes génne ay